ma gën a tuddee suñuy ndox la ñu yor du gaal lii. caméra ngay raam di. waaw. Thank you. pour am ëllëg dara Mbaye Fall nekk fii sous-directeur benn banque à Paris bàyyi fa lépp ñëw fii Mbaye Fall ñëw daal di créé empire maanaam ay technologie 2000 ak yeneen yeneen ba tey mu am xaalisam jënd gàddaay un bii nga xam tey ji ñu bari ñu fay nekk di suturu amul benn problème mu gasaat beneen site bu del na gàddaay boobu mu def ka gàddaay de jënd ko à hauteur de huit cent millions xam loo boobaak léegi ña nga xam ne ñoo ko jaayoon dem ba dem di ko jaay ay ñeneen ñooñ di tabax Mbaye Fall avec ses papiers yoo xam tey yëpp en règle droit réel ak titre foncier yëpp yëpp yëpp mu dem ba xam ne moom moom yëfam ci ay nit ñu fay tabax mu def la mu war a nguur gi nga xam ne tey jii ñoo ñoo ñu def descos descos bi mu saytoo ba xam ni moom mii te Mbaye Fall mi ngi si dëggam mais jox ko raison xam nga mais ay ay gymnastique yoo xam ne kenn xamul lan la ba fi mu nekk nii ñu ngi nii dugal ko si kaso bi pour lan Mbaye Fall sa place n'est pas à la prison c'est un citoyen honnête boo xam ne licitement li mu am lépp loolu moo ko li mu am lépp licitement la ko amee Mbaye Fall taxawu Cambérène taxawu diine yëpp kon tey ji am nañu droit ñun wax dafa doy sëkk pour Mbaye Fall retrouve sa liberté et ses biens mooy wax ji rek ñu xeexuñu xuloowuñu saagawuñu kenn mais li ñu def nii c'est noble pour un juste temps ñëpp xam ni dégg nañu pour que mbay faal ñu xam ne tey jii am na droit ñu remettre sa liberté c'est tout simplement ça ñu ngi gërëm ñëpp di sant yëpp merci beaucoup waaw bi ngeen